Cheikh Mouhamadul Mountakha al Khalifa suñu borom yàggal ko te wéral naa la lislaam yépp mu àggale ko ko ñaanal kilifa diine yi ak boolem jullit saada di jaarale ñu nuyoo bi ci seen cheikh ñu ngi doon xale woon suñu diggante ñu jàllaleen nu ko ci yow yi ñëpp seqal la léegi yëpp ñuy kilifa yi di nuyu bokk yi fi nekk yëpp di sant yàlla mi nu defal tawféex defal ndimbal ñooñu ñëw fekk si jataay bi muy si woote bi ñaan yàlla lépp lu ñu fi yëngu ba ñu dooree baax si ci waxtu yàlla ko yàlla gërëm lépp lu daje ci ak gërëm ko tedd ci Cheikh Khadim mbokk yi waxoon waxtaane lenn ci taxawaayu sëriñ bi ak lenn ci ay mayam ndax daanaka su ci maam ñi xam naa lu bari la léegi loo ci tànn rek mat naa waxtaan waaye dañuy tànn lu ci nekk rek ñu jël ci as ngir man koo fàttalante mu nekk am yóbbal boo xam ne des na ko mën a jariñoo ba yeneen jamono ndax Sëriñ Tuubaa léppam njariñ la léppam it ay xéewal la yoo xam ne loo ca am lu mu nuru lu néew lu rëy la lu bari la Sëriñ Tuubaa moom nga xam ne koy waxtaane yaa ngi waxtaane lislaam daañu waxtaan yonent bi alayhi salaatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu koy waxtaane ay jikko ak jëf yu mag yu rafet lañu koy waxtaanee te moom la yàlla digal jaam ñi ñu roy ko dana ko fi rasulillahi uswatul xasana kon boo royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jikko yem làmboo jikko yooyu ngay làmboo mooy tax waxtaane jikko yooyu nag yaa ngi waxtaane yi mu ko waxtaane yi yaa ngi waxtaane alquran ndax alquran ay melo ak jëf lay ñett bi jëf yu baax yi gaa jëfoon ak taxawaay yu rëy yi am ci jëfee la mu indi ak bàyyi la mu tere loolu taxoon ba ñu laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lan mooy jikkoo ñu ne mooy alxuraan kon boo ko waxtaanee yaa ngi waxtaanee alxuraan Sëriñ Tuubaa moomu nag dafay ku bari ay tuur te rëy ay jëf di kenn ku beru koo xam ne mosee su la dégg baa mu gis ku mel ni moom la kenn ca waykat yooyu doon wax ne bi mithli shay lam nasma xadisa wala fi saarifi dahri xadim kenn mës sa dégg ku ni mel ci ñu bees ñu ne waaye ñëw yi kenn mu su yëg ku mel moom di taxawaay boo xam ne nag dafa feeñ jamono rek jitteem ci lislaam jëm ci yàlla te jaaree ko ci yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa ko liggéeyal ci ay guddeem ak i bëccëgam nga bu ñu ko tuddee rek dàggantal wa ñuy wax ci moom mooy Xaadimu Rasuul mooy koo xam ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam rek lay liggéeyal ci diiru ak dundam waxtoom yépp mu jëmale ko ci liggéeyal Moustapha sallallahu alayhi wa sallam loolu it feeñ ci biir li mu bind feeñ ci ñi mu doon yar leen defar feeñ ci taxawaay bu rëy bi mu am ak dogu bu rëy gi ne ci moom ba mu jëfal lislaam loo xam ne lislaam du ko fàtte ci di ko melal lislaam du ko fàtte ci di ko waxtaane Sëriñ Tuubaa moom nga xam ne dafa ñëw rek ne sama yitte mooy yeesal li fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi woon lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatahu lgarra wa inni ahmad diinun siwa islaamihi la yuhmadu inda ilaahi wa bihi mujaddidu ujaddidu shariatu lmutahara in shaa wa xaqiqatul munawwara nadaafatu kulli min allahmi tahara wa sunnatahu inshaa rabbi ubayyin kon loolu li muy tegtale mooy moom luy tax lislaam yees sunu si yonent bi alayhi salaatu salaam yees loolu rek la Sëriñ Tuubaa moo ko tax a jóg ba mu ñëwee ci wan yoon la ko jaar dafa ñëw jaar ci li salafu saalix yi bàyyi woon te moo di baax ak woote jëm ci yàlla mu ñëw tàmbalee ci buntu bi ñuy tudde xam-xam def ko mu yitteem ndax xam-xam mooy wasiila wi lay wommat ngir nga egg fa nga jëm moo tax bi mu ñëwee xam-xam la njëkk def bu yitteem nga xam ne ñi gën a bari xam-xam te dàq jàng ci adduna bi sëñ Tuubaa may dem noonu leen mu xam loolu te xame ko ci diggante bopp génnul ci ay réew di wëri keppaar gi mu feeñe rek fi la taatane ba raw ñépp suñu borom amal ko xam-xam yi day yoo xam ne moo waxal boppam ne yàlla mooy wommat xam-xam yu nëbbu yooyu sama biir dënn xam ne suñu borom moo koy xamal maanaa yi ak baat yi yaqulu ulama al-ghaybi rabbi muallimi ila kalkani faydan yuri lafza wal maana ba mu jógee rek teel a wuuteeg ñëpp koo xam ne ci sa juróom-ñaari at ngay fanaane naa fi nga xam ne Mouhamadul Busayri ba muy tagg yonent bi bokk na ci lan ko tagge woon na ko yokkat ko teelam nit ak topp yàlla la ci wan waxtu ci waxtu ndaw la rasulullah teelam miin ak topp yàlla moo demee ci waxi Cheikh Mamadou Bachir li muy nettali taxawaayu soxna jaara ak di ko misaal Serigne Bassirou dafa wax ne soxna Jaara ci jigéen ju sell ju sàmm ju fegu jigéen yi diine joo xam ne ku taxaw ci wàccee ci diineem la digganteem ak boromam ak ak sànnam ku ko yàlla boole loolu sëñ Mbàkke moo ci sëñ mu ne waaye mu tekkee nag wa kaanat turabbi awlaadaha ala al-muru'ati wa taharri wa diin wa kasiiran maa tahki anhum hikaayaatu saalihiin wa sëriñ Bassirou nee na soxna si danaan yar ak njabootam ci bañu mus ak diine ak laab daan na bari na lu na leen gaa yu baax ya naan leen gaa yu baax leen miine woon mooy bu guddi jotee ñu taxaw di naafila min dabi saalihiin qiyaamu layl sëriñ Bassirou ne ci ñaw sëriñ bi nag mu teel a dégg waxi soxna si ba bu guddi jotee bu nit ñi tëddee sëñ bi daan temm ci ba fajar mu ne te booba sax dalagul jàng waaye xoolal gaan nga bu rafet di nekk ci xam ne bi muy nekk ab sang di jiitu gaan yi juróom-ñaari at la noonu ko Ibnu Mualla waxee wax ne saaba tiflan wa asruhu laysa fihi man yusalli bi sab'ati awaami ci juróom-ñaari atam la lan moo ma xamee gaa yu baax yëpp man xaasa martabata al axyaani fi sigar hatta bada fawqa abdaani al axyaani bi muy am fukki ak ñett ci zahir lañ ko jëkk way kañ ko te boobu bàyyee suñu mbàkkee moo rante séeréer ngi fi borom xam a ngi fi ku ñuy wax sëriñ Mamar Kan Dingiraay moo jëkk way Sëriñ Tuubaa keneen ba mu ko gisee rek ak meloweeg doxin bi la wax ne inna alquruuna bila dunya asimatihim fi raaxatin kayanqaadu manqaadu hada la ahmada bamba kaana waalidahu bahrul ulumi lam yalma mawbala mu ne Ahmadou Bamba muy dey siècle yi di ñëw xarnu yi di ñëw yépp nos yi nos yi nit ñi yàllaa ñu ko teg ñaari teen fi Ahmadou Bamba moom te loolu wax na ko ci fukki atamam ñett sëñ Tuubaa door a dugg ci li Maxin Basiir door maamu war a asir radiyallaahi fi yeddi dama ruutuhu min maa yi xaabal amin kon teel naa dégg kañ yooyu ci waxtu yooyu mu teel a jommal ñun jamono ci at yu néew ñu mu tollee ci fanweeri at way juróom bu fi desoon ni seen mbàkkee moral seen génn àdduna ci ci la taxawal yoon wi teg ko ci ay principe yu wóor asas yu dëgër ni iman islam ihsan nit ñi bàyyi ko bu nekk ñëw bi jaayam si kenn moom mu wax fi mu jëm ak na nam ma jariñ ci lu mu yor ni ngay ñëwee ci moom defe naa ku yàlla yónni danga naan yàlla yónni na ma ci nit ñi nee na naa leen woo jëme leen ci jub da ngeen ma topp ku ma topp mucc wax ne ñoom ñooy yor jamono nit ku nekk ñëw na def annonce am ci àdduna ci li ko yàlla sédd Sëñ Tuubaa nag dafa am déclaration bu def boo xam ne kenn ku mas a ñëw jamono bi woote wootee noonu Sëñ Tuubaa wootee amul sëñ bi moom foo ne amari bi bi am sawi xab yana ni maladul waximalu maf saaw fa man araadal xayra fi kiltay dahri ni fa leer suñu sama borom moo ma digal ma leeral nit ñi leen man nii may wéeruwaay bi may làquwaay bi may rawukaay bi ku bëgg jàmmi tey ak ëllëg na ñëw wéer ci man xam aw yiw tey fa man araadal xayra fii kii tey jaare yi muy tey ku ko bëgg na ñëw jox ma boppam daal di indi ci sowu jant décaraat bi ñuy tudde ak tarbiya ak tarbiyatu wax fi tasfiya taskiya te moo di tàq yi nit defar ba eggale ko ci boromam nga xam ne bu jëkk sëriñ buy jàngale mooy am ñu koy tudde seexu taam yi waaye ñii sëñ Tuubaa def ba defar ay uur ay góor yàlla yu bari yu jeex sëñ bi ko indi ci sawu jant loolu sëriñ Moussa Ka am na lu ci leeral sëriñ Moussa Ka wax ne ngirum tërbiyaa gi xew ci sawu jant yaa ko def fajut aajo yaa tax nit ku ñuul mos ko fii tuuma ku ci bañ a ànd ak Bàmba xam naa da koo xam ndax gumba gistu leeru jant yéem na Sëriñ Tuuba kamaalu rasulullahi mooy mat gu duutu sew matu sayyidul kaw nañ ne leen jox Sëriñ Tuuba giñoon naa ne yaay wuutaatu njol màkk ci defar ku koy sikki sàkka réere jàll ak Sëriñ Tuuba mu ne kon sëriñ moo donn yonent bi ci ak defar mu ne kon ku sikk sàkk ne sëriñ bi moo doon leen di jot defar eh. nee na kooku xëy ku réer la kon xamul jàngle yi may yi ko yàlla may moom sëriñ Tuubaa sëriñ bi awraat yi fekk yépp mu jëfati ko mais fekk ci biir ay waxam masaayix Seydina Jilaani wa Saaseeni maahum Tijaani di ko tudd di tudd Cheikh Abdou Khadre Jilaani di tudd Cheikh Abdou Tijaani Chérif di tudd Abdou Ashadili mu ne ci fiq mu nangu ci ñeenti madaahib yëpp aimati fi fiq imaamuna Ali wa Shaafi'i wa Hanbali buy def tawassul di ñaan di ci boole borom ñeenti ngir yooyu wala ma ci lii di mën ko tudd bi Malikin lil masaaya Shaafi'ina Abi Hanifatin Ahmad al-Mahmud yàlla noonu muy lay jëlee awraat yi di ko jëfandikoo waaye moom la yàlla tànn nommé ko def ko muy jëwriñ moo tax Sëriñ Tuubaa waxoon ne bi ma sóoboo yoonu yàlla yoonu yàlla xëtu dëngut ñaar képp laa jot mu Cheikh Abdou Khadir Jeylaani ak Cheikh Ahmad Tidiane Sy ñoom ñaar rekk laa jot nee Cheikh Abdou Khadre Jeylaani moo ne ma Ahmadu kaay mu jox la ci lu yàlla jox sëñ Tuubaa de ma ne ko tee ngeen maa bàyyi ak yàlla mi leen jox nee ñu ne ma fa nga jëm kenn jëm su faa jëm sëñ bi na nit leen ma ñëw nee na ma suubu yoonu yàlla yam ci yetti kuréel kuréel bu jëkk bi magsee ña fa nekk dañ maa wax ne ñun de yàlla dañoo jox man-man jox ñu xam-xam jox ñu sañ-sañ ba noppi jox ñu ndigalul bu leen kenn romb jàll sëñ Tuubaa ne ma sama borom jox ma man-man jox ma xam-xam jox ma sañ-sañ ba noppi jox ma ndigalul ahmadu bu la kenn tee jàll kon ñii jot nañ ndigalul bu kenn jàll seen biir jot na ndigalul ma ne tegg sama yet di jëflante ñoom ciy teggin di jëflante ñoom ciy teggin ba ne ma ay la yéwén mën ngaa wëy nee na ma jéggi kuréel bu njëkk ba wuti kuréel ñaareel bi ma ñëwee kuréel bu ñaareel bi dama kuréel gi nga jóge seen kattan ko ñoo ko ñaarate yàlla dafa ñoo jox man-man jox ma man-man jox ma xam-xam jox ma sañ-sañ jox ma digalul ba kenn te jàll ma tegati sama yett delloo ci teggin di ci jëflanteeg ñoom di ci dama mën ngaa wëy ma jékki kuréelum ñetteel ba wuti kuréelum ñeenteel ba bu ñetteel ba noonu kuréel yi nga romb yëpp seen kattan nga ñun ñii ñoo ko man am yàlla am xam man-man sañ-sañ ma noppi jot ci sama borom ndigal bu kenn ngaa wëy. suñ tubaab dama dégg ñetti kuréel yi di dox ba sama kàttan jeex sama man-man jeex géej gu rëy dox fi sama kanam géej gi ma ne su koo xuus ma ne su koo féey te kama soxlaa ne te ginnaaw géej ga muy Muhammadu Rasulullahi sallallahu suñ tubaab na foofee laa taxaw di jóor Rasulullahi di ko jóor di ko jóor di ko ko antal kanim anal xadiimu dahral qadimu ma ahmadu bamba jéggi ñëw ma dimbale la sëñ Tuubaa ne ma jéggi ñëw rasulullah ne ma su fekk xam ci góor yi ma ne rasulullah salaa salaam bi may ñëw nag takki ndomba taxumaa ñëw mu ne ma lu la tax a jóg ma ne ko tool bi lislaam may jëwriñ ji dana ko kenn ñaaj ñaaj ma ne ma may naa la ko loolu mooy li ma def ko xat si nii ne wa qaada lil mafbuda wal masnuna kon mooy déwlu yi dinañ dox drapeau l'islam bi mu nàmp ko te yi ngay xam ba mu wootee yoon wi dooy dem lijjanti ndax xamuñu loolu mu bàyyi melokaan woowu ni mu dëkk bu mu nekk dëkk bi dëkk am di Daaru Salaam mu sanc ko ci dësës di 1304 def fa ñaari at Wassës 18306 mu jël dëkk ba ak donga ya may ko maam Cheikh Anta Gaawaan borom dërëm ak ndërëm daal di ñëw na sañ ci Touba Laxrusa xam ne fii jumaa ji nekk fi la defoon mbaarum ngeer ak dóor dóorum ngeer booba dañuy sikar bu demee ci jàkka ji ñu gunge ko ci sikar si bu ñëwee ñu ànd julli bu noppee ñu gungewaat ko bu ni sikkar gànn mu noppi loo leen baa mu bay daleen ñu woyee ab diir mu toxu sañ ci daarul kudus sañ ci daarul rahman muy daarul naar kër sëriñ Faayu sañ ci daarul minan di bàggante ci béréb yii nag booba it bàyyi xel na mi ngi yore yar yi mu yore woon ba xëy rek wax ne أول ما ابتد به قديم تعلق بمن له تقديم وأظهر الخدمة عام جيش الدين وحلها أدبرها من أساس li ma njëkk a feeñal mooy ak aji jiitu ji aji des feeñal ci sama biir xol liggéey bu ma nekkoon ci asas di mille trois cent un war a doon mille huit cent quatre-vingt-trois ma ñëw ba mille huit cent quatre-vingt-quinze ma feeñal liggéey boobee mun sariqan fii jay sa seen réegi ku ci lépp lu dul yàlla nga xam ne duutu am ku muy sukkandikoo benn kerkeraan lay am muy yonente bi alayhi salaatu salaam benn wér lay am muy alquraanu karim mu leeral ne wasilati abdul muxtar sayidina huwa alladi man aba taqdimuhu xufiba sama wasila mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne képp ci moom la aju lii taallaqu fi sirrin wa fi alal ci moom la aju ci lu ak ci lu feeñ sama wasila daal di gàncax gi nag jël engagement bu rëy wax ne valal tuaabidal xadima bi dalil min ama ay sas it ila ami rahil ama ay sas mooy 1311 ci la wax ne jaayante na dogu naa bis ni ki tey ubaayi'u yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa asalullah wafa bis ni tey jaayante naa ci liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wasalaam te dutuma dakkal liggéey boobee kon maa ngi gañaayu gañaay boo xam ne ci bis bii ma ko tàmbalee ba ila yawmi rahim muy bis bi may taxasu di nopp man si zaahir dutuma ci noppalu kon loolu engagement la mu tàmbali na liggéey boobu muy liggéey yonent bi ci di ko tàgg ak di julli ci moom jël ab wax na daf koy xaaj ci ñaari wàll juróom benn weeri tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak juróom benn weeri julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax na lahum tidaaxi baada najaaxi inda sabaaxi wa fi lmasaa'i salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta maati saa yi. jël juróom benn weer yoo xam ne bu weeru muharram teroo te moo di weeru tam xarit benn weer yooyu yëpp xasida bu mu tëgg rasulullah bu dikkee ci rajab xasida gum tagg bind jëme ko ci julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam boole kooku maati saay mooy di roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne du wuute ak moom ndax nee na amul genn bëgg gu muy setantal lu mooy roy yonent bi alayhi salaatu salaam roy xol ak roy jëmm lay satliyel yow ma xaajaatun u ammiluha si waxtu fay ka xafal xalbi wa badan kon mën ngaa gis ne defar na aw nit sànci na ay dëkk taalif na ay téere bu boobaa man nga ne am na aw nit ñu sànci ay man am na aw nit ñu ay téere man nga ne am na aw nit ñoo xam ne it defar nañ aw nit mu des beneen xeex boo xam ne ñaar lay. njitteel li ñu tuddee aadaaw daaxiliya te mooy bakkan bànneex adduna seytaane adduna ku fi xuus jàll rek faw mu mutal la taas faw mu xañ la dara ndax ñeent yi ñi ñi ñi ànd ñëpp bakkan day xaritam bànneex kasalik seytaane ne ci ak adduna suñ tubaane ñeent yi nag mucc naa ci bakkan ndax bakkan dafay digal nit lu ñaaw mu ne mucc naa ci bànneex xam nga li ci Sëñ Tuubaa da gis ku dem may ñaan borom na ko am nit xawaaye ah rayal sama ba bu mu am bànneex mu ko ndax xawaa na taxawal bi xaq wala xaq bi ñu naan bi iqdaami ci russi na ak kullu muskil mu ne saytaane mu ne saytaane mucc naa ci adduna yi waxuma mucc naa ci waaye adduna sax jaar nañ foofu moom mooy sàkku mucc ci ma moo tax mu wax te nit ñi dafa nafs wal qalb wa sheytaanu xat faragu min qasdi durriya min dunda taxat salama ba mu noté ñeenti noonu yii ne da yàlla na doon na ma leen qaharta li nafsi qaharta li hawa wa suua wal idlaala suxta li siwa mu ne qad taaba qalbiya lamman lahu sallamani min alila ay amagaru daaqile wa bi xatti danbi akramani noonu yooyu mooy tekki bàkkaar bànneex àdduna seytaane kon sëñ Tuubaa dox nañ ñeenti noonu yooyu mu des nag noonu yoo xam ne noonu say dañuy jàmmaarloo ñi tax kenn laaj sëñ Tuubaa amul moroom ak réew mi ko moom kenn du daam ak yëpp loo wax wut ko ko wetee tan wut luñ ca def waaye noonu yi mu jàmmaarloo ñu leen di tudd ay nasaraan kenn mësta am liñ naan pour mas a jàmmaar lool sa gent la waxtaane waaye si jëmm nekkatu bi sëñ Tuubaa na tey ñii ñëpp nag bis noonu yooyu te noonu yooyu sëñ Tuubaa mën naa dund ñoom ñuy dund dañu joteeg ñoom dara waaye nag bu ñu fi nekk woon nun dañu am lu am ndax ñoom bi ñu ñëwee seen yitte mooy fexe ba jële fi lislaam sensé suñuy culture indi fi jëleen diine bu fekkoon ne xeex muur ak notaire yi moo tax tubaab bi ñëw kon du soobu sëriñ si bu fekkoon ne bëgg lislaam fay képp la bëgg bu songee sëriñ si bu songu woo yi waaye xam ngeen ni dafa takk ay xale jàmmaarloog wóor yi jàmmaarloog sëriñ yi kon ñaari pouvoir yi fi nekkoon muy temporel ak spirituel bu ci nekk nasaraan yi jàmmaaroon naa ñoom boo demee ca biir ceddo yi da ngay dégg ñu ne diw dëkk sàngam pour sàngam yor-yor sàngam weer sàngam bañ la jënd salaam la foo mucc nga dégg ñu ne diw sëñ sàngam dañu ko yóbbu am na bis boo xam ne ñetti téeméeri sëriñ ak nangam la ñu woon Louga bi ñu ñëwee dañ ne leen yeneen sant woon nañ jàll sëriñ Socé kenn gisatu leen kon tubaab bi xaw nañoo faagaagal du ma ne réew mi mais AOF la yor booba. bi sëñ Tuubaa jàmmaar loolu ñoom nag fekk jëmmi lislaam ci boppam tuuraat lislaam sëñ Moussa Deme la lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sowwu jant fépp mel ni làmbaay Cheikh Bamba daal di ñaan ci barkeb jiiri yaay doon ne yàlla may Cheikh ne ku may xaadimu rasul fi suudaani may ramu xarul bi ani niiraani ñett la sëñ Tuubaa àndas may ramu xel bi may xaadimu rasul maay saxee ku la ji maay xaadimu rasul fi suulaani maay dem ma xarnu bi ak jilaani maay fexe ba xarnu bi du ñu dem sabal buur yàlla su ne jox ngeen lu mu su ne gars yi l'islam nag bi ñu ko tëjee tamit yuuxu ku ko la karawaas seen tubaab jëm jëm ci dëgër loolu laa yàq xadiimahu sawlata man yasuulu bi barari fi kulli sama suñ ci wàllu ne rëgalu ma ku yor ay gànnaay di songe kon jees ñëwal ko am fexe ñëwal inni aqulu wala yamiinu li man yasuulu maa jëlaay maa ngi wax du ma jeng du ma ragal kan laa du ragal li man yasuulu maa kuy soxla leeri gànnaay rëgalu ma la danaa yeesal sunna si rasulullahi sallallahu ñu dese ko noonu jamonoom mu doy ci histoire di indi di nekk di sëriñ bi. 1888 bi mu seet Touba Touba bi bëggoon nañu koo gàllankoor ci mu rey seen Touba waaye boo demee ci doxawu tamit nee li tax Touba ak Darou Salaam gën a ci dëkk mooy ndigalul yàlla la am ci sant kon yàlla ko jox ndigalul mu dëkk fa sant moo tax bi mu ñëwee Touba rek. gis nga mu ne alhamdulilahi kari bi dil ne na alashiraani bi furuuri wa sunan sakartuhu li annahu qad saaqani li watana bihi nafa maaqani kon sant na ci borom moo tax mu nekkee te jóge fa ñëw dëkk bu ñu Mbàkke Bari gën mars na sëñ Tuuba ñëw Bari di samedi mars avril mai dame sàmbaloo be di Gourba Jolof jébbalu ci Sëriñ Tuubaa xam ngeen ne histoire yi sew dafa am ci mbirum sëñ bi tubaab bi bi ñu reetalee yëf yi ba yëf yi daan doom yi wuur yi dañoo doon jébbalu ci Sëriñ Tuubaa moo tax bi Tuubaa nañu Sëriñ Tuubaa na ko da ngaa bëgg a yëngal Kajoor ak Bawol ak Saalum ak sii ndax rapport bi ñu def ko meer nee doon ko liir ci ci ci 5 septembre bi alxames loolu la ñu ci def bu mat sëriñ bi dama sama doom bi pend mois de mai la jébbalu ci Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa dénk ko dénk ko kenn su ko wax boobu li ñu naan am teel bi di ko rus baal di ko ragal sëñ Tuubaa def dana ko li ci sa loxo yi ci ay loxo la jógee ñëw ci yow adduna ànd nit adduna ànd ak xeexu nit bu ëllëgee adduna mooy ànd ak ñi xeex la li ci sa loxo yii na ci dimbale way néew doole yi ak way ñàkk yi ndax man saa ma nati ma man jaara ba tey ndax amul ba maa ngi damay sàmm loo ba mel ni jébbalu na ci moom loolu moo waral dañu nekk mois de juillet Saint-Louis mu téye congrégé AOF lettre bi ñu waroon a jox seen tubaab joxuñu ko ma noppi bu ñëwoon sax loolu leen ko wax du ko def te seen bi moom yàq yàgg am ak jaxase ba tuuma yi baree nag da seen tubaab yónni maam Thierno borom Daaru Muxti ne ko ñëwal demoon na dara. bind lettre bu dal lettre Sëñ Tuubaa boobu fi ñu toll nii boo demoon ci archive yi li mi murid yi ñu yaru la ñu baax la ndax xam nañ yoo xam ne bu ñu ko génne woon rek lu lay xew waaye jël ko comme jàmm ak yàlla xuloo amul dara dara dara dara dara dana ci jàpp waaye kon yii nga ci tali yeeg internet dina jaww ndax boo ko defee dina man moom sëñ Moussa Ba dong laa tudd si heure bu keneen nekkoon moom ma ne ko xam ah, waaye moom daa baax te bëri yërmande te na mu dalee ba ko sëñ bi xam ne ñoom ñi ngi woon ci ay complot fekk nañu takk xale bu war a jël si sëñ Tuubaa loolu rek jàngal na la melokaan woowu. sëriñ bi keroog bi ñuy génne këram di dem ca tukki ba di wujji te woote ba dajeeg nasaraan bi ci jeewal doy na ci histoire murid yëpp bu ñuy nettali bu ñu neexee mën nañoo yem jeewal li sëñ Moussa Kanaan masoon naa fanaan jeewal ba muy dem ca géej si ñu woon ko fa mboolem lay xaloo xew ba dem Touba mais mënoon naa wàññi koo foofu waaye kon du am may yii mu am boole jaroo rek sëriñ Touba mbër mu yées moom suñ tubaab tàggoo lool songaat ko muy iblis sëriñ bi ne ay min la wax nga jeewal iblis a naa dee tuub yaawali naa dee tuub yaa nasiru yaawali te fayte ni iblis a ànd jeewali delluwee feneen diñ ne billahi faaraqatu nasara jeewali wa gayrihim xat an bilaa tanawuli giñ naa ci yàlla tàggoo na ma nasaraan bi ca jeewal bilaa tanawuli te yóbbu ma benn gànnaay loolu doy na ngëneel Sëñ Tuubaa dem Ndar def fa 38 jours loolu it moo ko nettali boppam ci téere bi sa Jazaa'u Shakuur al Atuuf fi Jawaabi Abdu Latiif te la wax na makastu fiihaa baqiyatu safar wa rabiihu awwal ila yawmayni yawmal xamiisi wal jumaa sax naa fa la des te weeru safar wi ndax ñaar fukki fan la fa ñëw ci weeru digg ba weer wi jeex mu def fa gàmmo gi ba mu def ñaari fan yi alxames ak àjjuma Sëriñ Tuubaa yi yëkkati fa dëkk waxal bopp mu hadaltuma banaa kullu man jaxat min al firaw bi xud wala qaat sos yi ak yi ma fa fekk yépp dama koo mabbu ci lan laa ko mabbu ci xud wala qaat mooy saxal na yàlla képp mooy boobu saxal na yàllaay buur keroog bi conseil privé bi dajee alxames tàmbali procès bi 9 heures ba 11 heures 45 minutes yëpp seen tubaab ko na fi moom parce que nu mu tëddee def sànni garab kàmbar julli ñaari rakk jàng baqara ak anbiya sëñ Mouhamadou Mamoun Ñan ko laaj may gëstu ci sëriñ bi doomu sëñ Afre la way juróom ak sëñ Fall ñoo bokk fa laaw ba suuf sëñ bi joxe woon aw turam mi ngi fi yàlla yàlla gën koo yàttal mu ne dafa mas a ànd si ñoom Lahad dem ndaal kër Moussa benn tubaab bu tudd Gaspard ñëw fekk fa sëñ Abdou Lahad na ko sa bàyyi sëñ Tuubaa xaw ma lu ko yàlla di defal waaye jaral ma ndax keroog bi muy julli gërëm góor fa la ma fekk waaye bi mu jullee ba sëñ ba dana ko ma woo ci yéen ñi mais loolu la sëñ bi wax xanaa ko ma woo ci yéen. nee na kenn ku fay toog benn ñëpp ca kaw yow génn moo tax sëñ Abdou Karim Touré ne say kii xat xaabala ak xaqamu fantasaw sama sëriñ bi bi mu na ko war a tiit kon mu ne mabbu naa ay fen saxal dëkk ci taxaw ci ay noon nga xam ne fii nga taxaw aw nit jaar nañ ci sànq ji ba faw am na ci ñooñee koo xam ne bi mu demee kër bu yàggul maa ngi ciy waxtaan ak yenn kilifa bi ci archive yi mu ne am na koo xam ne kër bi mu ñëwee fekke woon na atte Serigne Touba bi daal ñëw daal simmi pantalon bi mu sol da ko simmi wax soxnaam tellement al ab seen ma war mu ne ko tey lay door a gis góor gis naa góor tey daan na ko ba ma dalee nekk ca bureau gouverneur ba tey jii bu góor-góor mësta wax defal nga ne du ma def ku dul tax moom képp la ne ko defal mu kon hal nunziru illaa li dunya tafsiraa wala xulaaqi abadan man tafara loolu kon def dëgg ci Serigne Touba boo xam ne ak saxal na yàllaay buur bu wér loolu gëm gim gëm yàlla xam gim xam ne loolu nekkul ci nit ku weex nekkul ci nit ku ñuul yàlla rek ay lool mooy jay mooy gëm bu dëgër boobu Serigne Touba gëm yàlla su ma taxatee jihaadan fi sabiilillaah tan hum Ndakaaru bu isnil mu'miniin keroog mu fi jógee ñëw Ndakaaru ñetti guddee yooyu mu fanaan dem ci liggéey mbuur yi boobu mu doon liggéey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa juróom-ñaari at ñu teg ay weer teg ay bis lépp di liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal boppam ne farraxtu afdal alwara bi xalami fi xurbati inda istidadi kurabi bégloo naa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te man waxtu laa ko bindoo jamono yi nekk ci tumuraanke ka natt yi tar man laa ko doon bégal yóbbu ko ci yoo xam ne maa yomba am na fa juróomi at libar bii ay weer lembar na ñaari at nañu xool ñetti place yi rek moo wax sëñ Mbacke Diouf na ko guddi gi ma njëkkee wàcc Gabon wéet naa fi ba mel ni néew boo tàmbal ci bàmmeel ay bokkam ñibbi gisuma foo xam yàlla gisuma ko koy wut ñu dem mu ne maa ngi koor gi dégg fekk Gabon fekk ko fa amul ndox amul xët mu ne bi ma séentoo weeru koor gi ma séen suñu borom moo yónni Jibril la ko ne Ahmadu na um mu ne aw ma ndogu aw ma xëdd ñu ko nga bëgg ku mënta te mu du ci def di ci jot ah aw ma ndogu de mu ne xool xool garab yi ko wër garab bu ci lewet na ci dagg yetti xob da koy sujj sujjal muuti ndox mi yàgg garab bi garab baa ngi sax bu mu jàll bu ko muutoo ndox mi na yàgg garab baa ngi seen tubaab um kooram bu dog mu waaxul boppam ba yegg ci garab dog ko ñetti xob mus ndox mi yàgg bi nga xam ne sawul wisaal lay mooy day woor ba ngoon mu continuer te téew muy tatagal weer bi yaa xayra dayfin ata bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarqiban bil aadad bu wooree ba ngoon amul ndogu amul xëdd am na koor boo xam ne seen saatu la yor dem wecc ku ji ko wute ko ab xaal uppati ko am na genn koor boo xam ne benn reenu ñam bi képp la yor di ko garañ wala boobu wéet nag kenn du ko wétti bu bëggee jàpp léeg-léeg mu wàcc ci diggante bu sori dem jàpp ñëwaat bu tubaab bi dee maaj bu nekk ci seen biir du am ku ko wétti seen Mor Xali Bousso nee na sëriñ bi ci boppam nett li na ko gis na ko am naa bis boo xam ne nii néeg bi ma tubaab bi am ci kaw lal bi ma nekk am na waxtu julli ba nuy maaj muy taxawal farate boromam sëñ ma la muy jub daal na nee am na bis boo xam ne dafa namm ndawal buum namm ndawal gisu ko nga xam ne cotisation yi jënd la jëfandikoo donc comme monsieur ba noppi raxasoo saabu raxasoo suuf ba nga xel bi dañ nee na ba mu noppee ba mu ne càkk xëy ma gën bëgg a tàmbali bind kaddu yàlla bi dal ci kaw ma a gis asamaan mu na ci luy lor na bis ndaw maam Serigne Sy nee am na bis muuraatee la ko Cheikh Ibrahima Fall yónnee ci géej gi nee na bi ko musee mu tàkk ci déjale ji nee na mu noppi jàllandiku dëgg nee na ci saasi suñu borom dana ko boo bëriwul jëfandikoo lu mel nii doo gis Rasulullah boo bëriwul di mosat lu mel nii maanaam muur ak kebe dana ko boo ko bëriwutoon mos doo gis Rasulullah ne fa xasal bi a dugub yàlla na waa dugub moom boo ko bàyyee may na si boo xam ne si lu ñu dana leen benn waaye dafa ñëw. di ko parfum wala keneen nee na ñoom ñaar bu ñu ñëwee jox ko sëñ Tuubaa ñuy xuloo ko werante sëñ Tuubaa jóg na di bàggati innani usni ala xayri manami wala ashtaki lil xalqi min faqri anami béréb yooyu mu doon nekk am su boo xam ne sëñ Mourou Khali ko wax dëgg tubaab bi ci boppam moo ñëw fekk sëñ Tuubaa fu mu nekk mu ne ko ndax yaa ngi seen garab yee ne ko kenn ki ne ah, waaw maa koy seen de mu ne ko juróom-ñaari wëlli yu dañ fa gas sa ma maam a leen rey daanaka sama maam moo leen rey te wëlli yooyu seen maqaama yegg na ci bu jant bu fekkee ngay sox lu fi xew lu fi xew lu nekk na nañu daanaka ko baax xam nga ne juróom-ñaari yee yaa leen di juróom-ñetteel sëñ Tuubaa ne ko ñee du ñu man du ma ñoom nee na li man li ma ñëwoon ba sa maam nee na keroog nasaraan bi ne ko bu waxtu 6 heures du matin jotee na muy fekk kataase la ñu juróom-benn waxtu di jot tubaab yi jël si Serigne Touba di ko yóbbu kataase la nee na bi ñuy dem ba yàgg mu am ku séen ku war a fas sëñ Modou xale yi ñett yi nee na ko man la Jibril alayhi salaatu salaam suñu borom moo ñu yabal lu tax lu bëri. ñu dem leen ci Ahmadou Bamba tubaab bi dañ ko bëgg yóbbu ca quartier dafay tàggatoo bu ñuy tàggatu fil ko ci fas yi baa ñu fetalaale ko dem leen ngeen taxaw ko tubaab bi seen métal gi nga ko ñii ñun yaa leen fi indi seen bi ne ko maa leen fi taxaw ñëw kenn la tubaab bi ne seen tubaab signal fii na faw doo fayal toog nasaraan ba faw ñu bàyyi la nga dellu ca réew ma bàyyi la nga dund sa diine lu la neexee seen tubaab bi suñu yëpp bu la waxaat alaw sama lam yi nit wala ñu mu ne ko nan ñu wax la ñan ñooy seen njaboot ñu may leen di dund seen diine nu leen neex seen Tuubaa nag kuy wax laa ilaaha illallaah anna Muhammadan rasulullah ak ragal ak yaakaar sëñ Tuubaa rek ko def loolu moo jur kon ilaa nasrnaa qad saara'uu ma'a quyuulihim wa xaafa al-i'laab wa maaluu ilaa salaam sëñ Mourou Khoury ba tey yéen am na ci tubaab bi dafa yor ab xaj moom mat ko indi ko ci sëñ Tuubaa sëñ bi ne ko sa waa ji bu ko fi indee ci mais mu ne ko lu ko naqari laa bëgg dem indiwaat beneen xaj ba mu ñëwee nee na sëñ Tuubaa yi ma ngi ci daal di wéccax ko xaj bi ne jëppi tàtt aw ni tubaab yi mu sax fa di wéet kenn wéet liwul Sëriñ Tuubaa muy xeexal islam ba keroog bi ko tubaab bi mujjee natt mooy bi ñu koy fetal ci nga xam ne guddi bu lëndëm lañ jël àll bu sori yóbbu sëriñ bi taxawal ko jël fukki soldat ak ñett ku ne ñu jox la fetal na la dàttal benn ci ci moom keroog tubaab bi ñëw na ba ci moom na ko ndax ñu bët yi bala loo mën a gis ñeneen fetal mu ne ko du ko mat kooku la koy góor du ko mat bu dugg leen boo xam ne tabaaraka rabbu li xam ne xaar yi wax dëgg faqiran xariban ànda dal waaw baafali ku fa taxaw di ko wétti li amul ku koy défendre amul. seen tubaab ñu laay mu gëm kër seen xeesaay yu mu bu yàgg seen ñu laay fetale ñoom ñëpp ran fukki soldaar yeeg ñetti taxaw di xaar. ndigal ñu ne leen déglu leen ñu tàmbalee 5 4 3 2 1 0 ñoom ñëpp teqaloo seen i bal fukki bal yeeg ñett yëpp yàbbi ko ci gémmiñu feneen yi wuti ku tedd ci Cheikh Bamba waaye kenn ku ci bal bi nga dóor au lieu que mu dem ci seen biir retourné wu daal ci sa dënn la daanoon jaxanaay mu bindal boppam ba xabbali lu xaabu fii sulaasa maa ngi yóbbu jëloo ashrat wa salaasa yàlla may na ci talaata jii duur soo fukk ak ñett sëriñ bi ma nekk nekk foofu di wéet kenn du wéet li sëriñ bi kenn du ko jàppale si ay meloom ci doxinu biiram ak doxinu bitteem am na ci bis boo xam ne nii ko yàlla fayee ci bari jàkkaat yi jumaa mu bëgg jàkk lool ca mayam baax dem wuti ay bant moo ko yàttal boppam kenn ku koy gàddul wala ku koy jàppal amul mooy dem yett bant yi ñëw samp ko ñeenti jekk kaare ko def jàkka daal di féex alhamdulilah ci am gi mu am jàkka tubaab yi dem guddi bant yee sànni ko ba noppi tuur fa ndox keroog la tëri fan yi ko am ndox laa ba mu agsee ci masjidi Rahba la ko yàlla woon jumaay Njéeréen ak jumaay Tuuba da ko danaa la jumaay Tuuba jumaay Njéeréen ajjuma tey jii téeméeri juma ak ñeent fukk ak benn julli ni ajjuma Tuubaa kenn bu ci woon ñeenti bantam yi la yàlla fay ci dëkk boppam téeméeri juma ak ñeent fukk ak benn julli ajjuma ku mu gënal ku la seen juma daf moo tax mu ne barakatul islam yi nga xam ne aqbal wa man xalaw ni fi bara yaa xaaj rek barke islam dëggal na ma ku ma bañ am gàcc yàlla fay na ko ci melo yooyu yëpp fay ko ci doxinu biir fay ko ci doxinu Serigne Touba liggéey liggéey boppam mat kenn wéttilul Serigne Touba ak jabootam di tawat Cheikh Moustapha Serigne Fadilou Serigne Mamadou Yedda di génn adduna Cheikh Mahamadou Lamine Bara tawat keroog la wax bistu balaa al ankabut ahasiba an-nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin mu ne xol bi bëggul doom bëggul alal moo Ousmane bi ci loxoy Rasulullaay Fallou nga ci loxoy yàlla Mouhamadou Lamine nga ci loxoy alquran fan yàlla ni daal macha allah lu taw bi mën na ko def kii noonu ay këram gent bu tàggoo mu njabootam xusuur bi xalaat wala tax nga xam ni tafaaraqat li ma def léegi am ko mat yi mu xas yi te masir yi kaw ni abdou xaadim nabi wa amul baraaya lillahi asiru sama kër yi gent nañ sama njaboot bi tàggoo nañ lu ma ko yóbbee tàdd Rasulullahi te lu ma ko solal mu gàtt melokaan wu Sëriñ Tuubaa di jëfe ci réewum mii war a noppalu war a dallu war a féex dëlut noppaluwut féexut ñu génnewaat ko réewum yóbbu ko ca gànnaar mu defati fa ñeenti ati gànnaar naar yi ñu mën a diiŋate ñu bari xam-xam seen tubaab yi dem loolee nga xam ne li naari li naari jóor seen tubaab kenn mënu koo jóor seen bi Cheikh Sidé tàmbalee ci Cheikh Sidé dafa yàgg ci naan seen tubaab fa rusul law lam takun bil Mustafa qutimat qulna la anta rasul wa tibu tariq lakin lahu xasanatin kunna law qusimat yawmal jawa bayna ahli kufri muhtaraku yow de nii nga ci baax ak tedd bu fekkoon ne yonent yi mujjul ci Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne yow Serigne Touba am yonent nga loo am yonent nga waaye li la yàlla jox ci njekk ak baax bu mu defoon ba mu tëj ñu séddale ko benn yëfam lakk moo tax mu wax borom pénc bi Cheikh Abdoul Bachir sëñ Bachir nee na sëñ Touba xaadali daata yow mi ina sarfa si li ne la di makustuha fi Congo ma daaxaat sa yësoo yow matul la sarayu sëñ Basiru nee na sëñ Tuubaa moo ne Mouhamadul Basir sama juróom-ñaari at yi jéeg bu réew de bis pénc bu jàmm ñëpp teewe dana feeñ adduna da dana kër pay ndaxuma yàlla bi ma koy jaamu yàlla ndoxum bi may fay waaye laysa dunya bi daaru jazaa wa shay'un fil aaxir adduna du dara bis pénc yi mbir ma gaa yi yàlla ñu di ko jóor Abdourahmane wax la ñu nee na ألا يا عباد الله قوموا لتشهدوا ولا تكتموا ما تعلمون فتعتدوا سألتكم بالله من دار رأيتم على الأرض مثل الشيخ يقع يسجد فإن قلتموه ما إن رده مثله فحولكم حق وإلى تفندوا léegi yëpp jaam yàlla yoo xam ne dëgg bu kenn nëbbu ndax mas ngeen a gis ku mel ni sëñ Tuubaa mu ne boo leen nee ku mel ni sëñ Tuubaa wax ngeen dëgg ku ne gis naa ko ni mel waxoo dëgg mu ne seere naa ci yàlla ne ku mel ni Amadou Bamba mas na fekk tàkkam ci kaw suuf ربابهم أتي المعنوي يوصل انتباه هذا القديم من الكمال عجائبا وما قالوا في عيون التحارب لم تسمع ما قتل مثله والشبيه لم تبذل الابزار nopp mu sëñ bi ku mel ni Serigne Touba Serigne Touba daal di noonu jéggal leen. dakirun raakiun zayyidun safiun saduqun fi maqaalaati suñ Saliou boobu nga xam ne bëgg a sori nit ñi moo tax bi muy ñëw jamono fekk na iblis la ndaw yi mu xaati na jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la seen Tuubaa defoon ma barkeeloo a wax ni rus naa jamono te kenn jant bi may tiim di ko tiim muy fàttali jal sawar moo dund juróom ñeent fukki at ak ñaar bisam yëpp mu jox ko yàlla fukki junni ak ñaar ci dongay laxasaay dafa bàyyi moom sëñ Saliou te ba mu leen fi bàyyi rabbaahum rabbaahum suma awsalahum ila azizil muasin bi isharat ba fajar ajjuma gi ñu mujj gi Serigne Saliou kurus daan ci loxoom mu boole dëgër ak fit ak njàmbaaram ngor na nekk jublu ko kër kurus bi di rot mun ko mën a ko ubbi ko barsàq di ko kama tab sama ala xayri xalifati man baaxat bi daar pàkki suuf yi di jooy asamaan si di jooy mu boole dëgëram gu mag wax ne am naa juróom-ñeent fukki at sama bis yëpp ku fekkewul jamono yooyu te fekkee koo xam li mu jëfal islam ci ngay xam ne koo jël indi ko ci Serigne Touba ci ñoñam mu mat misaal moom bu loolu soree ci yow iblis mii di noonu yàlla boo ko doon def boo génnoon tey iblis boo doon ko mën a dajeel def sa micro bii di ko laaj na ko ku la gën a sonal iblis boo nekk woon ku la gën a fàtt ci jamono yi danaan la ku ñuy wax sëñ Muntaxa iblis boo ko laajee naan la sëñ Muntaxa ñu boppam moo ma teeras ndax dafa maa jur surnet alquran may miir mu woote surnet xasiida toj adduna ma defe ne fa lay yem mu jox ma benn tettale si kuréel mu pare loolu sax mu dafa bu fekkee am nga misaal dara rek xam ne borom daru mi nag moom am na lu moom gaañoo am ni mu loolu boo ci amee jàngat mooy sëñ Muntaxa réglé na affaire yi te seetlu woon ne sëñ Muntaxa da koo dóor ak at mi jeex li gaa yi wax laas loolu sëñ Muntaxa def fi ne leneen ngay dégg waaye 2022 bi doo dégg leneen ngay dégg fi ne da koo nappaaje sëñ Muntaxa da ko nappaaje lim ko sëf 11 août doyu ko mu bàyyi ba 22 septembre 22 décembre mu ne sikar su tàmbali 16 heures tàmbaliwu ko guddi 4 heures la ko tàmbali namare ko nga xam ne bëccëg gi du am fu muy geste du ko may iblis nelaw mu dóor ko mu rëg a bëgg moom ba waxtu ba del siwaat mu doon la maama waxoon xaatabtu fil baxri seytaana nu kaptabahu xayru wara ren dinaa seytaane ci géej gi rasulaay ma ko ñal ñàddal Seex Muntaxa ko rey ëpp xam-xam ëpp jom gën a dal nee na sëñ Basiiroo ma ko wax de sëñ bi foo ko toll mu toll la fi noo ko def rek mu def la ni te vitesse bii sëñ Muntaxa di daw di ko won nit ñi ci sëñ Touba fi ne loo bari bari àll boo déggee sëñ Muntaxa sax da ngay rus da ngay defee ne yéeg nga waaye boo déggee sëñ bu da ngay xam ne départ boobu ci pas-pas bu kawe bi sëñ bu Muntaxa nekk. tey bu ñu amuloon kilifa gu mel noonu fu ñu koy waxee xam meloy biir yi xam meloy bitti yi kon bu ñu nañ déjjër la ci sëñ Tuubaa bu ñu dara dara dara dara dara dara jéem a soppi dara ñi nga dégg ñuy woote ñépp dañoo bëgg dund bëgg a dagg rang gi te kenn du leen dang rang xam nga ne xale yu ndaw yi nga xam ne heure bii li nga waroon a tàmm xam ngeen ne tey la guddi 31 décembre nga xam ne waxtu wi ñu toogee di teewul sëriñ bi am na ñuy wëllëx ndiku nga xam ne iblis nga leen di jañ ku tax tey ndaw ñi mënoon a toll ci loolu ba noppi bàyyi ko te li ci gën a yéeme mooy dañuy doon ay jàngkat nekk ay élèves des intellectuels sëñ Tuubaa gaje combat boobu nga xam ne bu jëkk ku tàmbali jàng i uy oo rek dangay ñàngal léegi dangay jàng ba jeexal yor bàyyi laat wékkoo maxtu daqa jooy daqa daanu daqa kuulal daqa jàng xasida di wax jëwrin yaaram ku baax ki murit nga xam ne yow mi jàngut sax yaay wax di jéem a tuddug nasaraan waaye moom dañoo jël lañ jàng jëmee ko ci liggéeyal Sëñ Tuubaa nga xam ne bu kàccoor jóge woon ci ëllëg ci àll ba ngir bëgg a yàq fekk fu ko jàng ba fees toog di ko xaar te même tubaab yi trouvé nañ ne xasida yi ñuy jàng di indi jàmm ci àdduna mas na dem université Laval ci Québec ma war a def benn conférence ci salle bi ñu ne nañ may tuuti benn trente minutes parce que tubaab yi dañuy wax ne yéen seen lii ngeen di santé wax nañu fu ñu ko jàng day am jàmm ñu bëgg ngeen may nii tuuti ngeen yëkkati ko après ngeen continuer seen programme bu njëkk dañuy wax ne jàng mënta ànd ak dara waaye nu ngu woon jàng ànd ak sport jàng nu ngu ànd ak fecc jàng ànd ak nangam léegi bi ñu tàmbalee université yi élèves yi tàmbali jàng xasida yi ñu bëggoon a soboote naan jàng mënta ànd ak nangam far tey université yoo dem da ngay dégg ñu ne étudiants yi nangam dàq jàng xasida dàq jàng te kenn du ci am lu moyen moyen yu baaxul doo ko am ndax sëñ bi daf lay taxawu loolu sëñ Tuubaa daf cee gañe nga gis koo xam ne da lay nuru ko zaayire lool xol bi sëñ Tuubaa rek a ciy nekk ndax sëñ tubaat dafa jëkk ci xol yi nga gis koo xam ne da doon jàpp ne dara ñuru ko sëñ bi jaral ko bakkanam ndaw ñi yàlla dogal ñu daw wuti sëriñ Tuubaa ci bëgg koo xam ne amutub yàmm wax nañu ko léegi daayira bi ñu ne dañu ren ji mooy seen ñaar fukkeelu at léegi laa leen ko wax ma ne leen man man mii fi ne at mii mooy sama ñaar fukkeelu laat ma naan sëñ Tuubaa ne maa ngi door a am loolu ren bi maa yéen ñoo bokk anniversaire ñaar fukki at yéen xam ngeen ne man ko dëgër bopp la wala mu xanaa ump leen moom faalewu ma dara man damay gën a ñaan rokk si ci sëñ Tuubaa ak gën cee sakk loolu du caaxaan de ñaar fukki at fi ma teg sama tànk di ko accéléré wax naa leen léegi nañu waajalaat fi ne dañuy waajalaat ci 2022 bi lu bees ginnaaw sëñ Muntaxa ren dina iblis ndax sikku lay xajut ci kaw affaire bi fi ne da tek bu ñu déparatee nag laxasaay yeneen ñaar fukki di jëmaat ci kaw na gën a nooy maanaam bu mu laal suuf ji sëñ mu taxaw waxoon mooy nañu yéegal baar bi ba ma wax sëñ Tuubaa fi nekk ñu naan bu ko wax sëñ Tuubaa kenn la ñu ne kenn yàlla lañ ko loolu waxi ñàkk fayda la kenn yàlla lañ ko wax ku xamul ne yàlla kenn ki rey nit ki ci kër gi ñu yóbbu ci armée la yóbbu ko Tuubaa suuli kay xam nga ne ki def loolu yàlla sëñ Tuubaa du reye sëñ bi du yàlla kenn programme yàlla day raye mais sëñ bi du raye ñee tëdd bàqee ku leen fa tëral yàlla hmm? bu ne sëñ Tuubaa kenn la ku mel moom amul misaalum sëriñ Tuubaa mësul am ginnaaw nabi te ab xarnu duutul am ku dend ak sëriñ Tuubaa ni sëñ bi amul loolu lañ jublu ci ne sëñ Tuubaa kenn la kon yéen it yéen a ngi war a waajaat ndax bi ngeen di tudd daayira bi wax 2001 am ngeen ci ñoo xam ne booba ñu ngi door a juddu tey jii am nañ boroom kër am na ci ñooñ sax am nañ gone am na ci ñooñ jotuñu war a denc am ñu denc mbooloo nag bu ñu àndee ba am ña nga xam ne ba ñuy bootu di ñëw di seetaan si ñoo ñuy organiser léegi war nañoo gën a dëgër soxna Aminta mi baax mi ngeen doon Aminta Lo mi ngeen doon jox décor nii loolu ndam la yéen it ni ngeen dem ba bu ñu amaatee yeneen ñaar fukki at fekk leen fi ñoom ñii ñii di doon ay jeeg yu ndaw doon ni maire yooyu bu boobaa ñu leen woo di leen ko décorer ñoom it beneen génération bi ñëw nekk ci loolu kon li sëñ bi wax rek gën a yàgg gën a neex sëñ mu lu wax gën a yàgg gën a neex ba ba àjjana moo tax ma déggee oustaz yi naan àjjana kenn ma ne leen yéen ginnaaw seen sëriñ ñëwut àjjana yéen wax leen fi mu wax noonu suñu sëriñ moo ne àjjana ah sëñ mu tax gën a neex. nekk nekk leen jë rek. ah waaw nekk leen jë rek. waaw day gën a neex rek di gën a baax di a sell di gën macha maa ngi leen di jégalu maa ngi leen di sant hmm? tubaarkàlla kon daa mel ni ñetti waxtu jot na maa ngi jégalu ci waxtaan wi li ma ko bëggee woon ak ni mu amee sax bokkul waaye dama yëg ne rek li coono yi bari bari noo bokk noo bokk fu ñu nekk noo bokk Sidi Birahim borom daaru dama yëg rek ne bi ma ñëwee ci jataay bi aman na dama mën a daanu loolu yàlla nattu damay wax ne des na ci kanam est-ce que waxtaan yi sax dana mën a continuer Tuubaa moom di ko laal di ko daj ci la nekk barke Xaadimu Rasuul da ngay rus da ngay tëdd nelaw bu yàgg nga tiit di jooy ndax ni la def rek Sëñ Tuubaa moom nu ñu gën a engagé rek kon yàlla nañ ko feetewaat yeneen ñaar fukki at ci doon yi aawa yàlla nañ am mujj ñi am benn yàlla nañ am ñaar ñi amul yàlla nañ am ñi jàng yàlla nañ réussir ñu wax bac lépp ñu am ko niñ ko bëggee ba noppi ngeen am ay liggéey yu baax doon dëgg dëgg murit ñuy jëf ci yoonu Sëriñ Tuubaa yàlla defal leen ko maa ngi sant waa kaw la gépp ñëw leen ñoo ngi bég bu baax am mbégte ci tey jéggal nag yow murid saadix nga murid saadix nga ndax sëñ Tuubaa moom kuy ku ciy jooy rek murid saadix nga ndax yóbbut sëñ Fallu nee na rongoñ ngir bëgg sëñ Tuubaa farata la saf ko bu mu ànd xubbil xatiimi faratan ara maa ngi leen di gërëm nag yéen waa Kaolack sëñ Cheikh mi ñu daloon këram sëñ Cheikh ñaan mooy maa koy siyaare bu baax bi ñu ñëwee toppatoon nañu ñu baax maa ngi koy gërëm moom it dafa sant sëñ Cheikh mi ngeen doxale woon suñu diggante it sëñ Cheikh Sylla moom it ku ci la man a woote nag la def moom nee naa nee naa gis naa bu mën a woote ko demee mosuma gis bu ni kii moom am nga ñu ma ne mu si xanaa ni dara daa xew maanaam buy coupé rek téléphone bi sonné waat ah xam naa fa ñëw njaareem ci màggalu sëñ Mor Mbaye Cissé loolu taxoon ñu ñu moom it ñoo koy nuyu. nekk fii ci Kaolack bokk ci soppe yi moom ñu ngi koy gërëm bu baax Kaolack moom am naa fi ab cër ndax sama doom la fii say la jógee sama aaw fii la jógee ma war a delloo xam ne maa jël seen kopp jëlal leen ko fii yéen waa Kaolack yóbbu ko Tuuba defaral leen ko noonu joxaat leen ci ko leen indi yéen a ma war a delloo sama ñun maa ngi yéen bu ñëw ne la ma raw yow man waa Thiès ni ma wër waa Louga ak Ndar ni ma wër ma jël waa Kaolack nga war a dolli dolli da ngaa war a dolli dégg nga kon jërë ngeen ñëpp baal leen bàq.